asalaamaaleykum wa rahmatulah xanaa kontaante kontaante mbégte mbégte mbégte rek dañoo bég ba ma ñu ñoo wax Serigne Touba xam na ko la ilaha bi ñuy dund ci suñu xol yi leer bi ñuy dund ci suñu xol bi Cheikh Ousmane Diagne jaan ñu ko borom jaareem yaa ngi may dégg ah jaalale ko ci sang Cheikh Faye mu jaalale ko ci ñun moom la ñuy dund di ko di ko waxee di ko doxee leneen lu dul moom doxuñu ko leneen lu dul moom defuñu ko moo tax cant yii leer bi ak bunt kii bi dañ ciy góorgóorlu sant yàlla bu wër mbégte mbégte mbégte Amin sopp Seex su lay loxo ku sopp Seex su lay loxo ku sopp Seex su lay loxo ku sopp Seex su lay loxo ku sopp Seex su lay loxo Baabulaay Baabulaay Baabulaay Baabulaay Baabulaay mooy sunu baabu eh. yaay sunu baabu laay baabul jannate Cheikh yaay sunu baabu laay baabu laay sa calale ga la nangu sa liggéey ba la yàlla gërëm Cheikh Souley sa calale ga moom la yàlla nangu ñaan yaram sa liggéey ba la yàlla gërëm moo tax mu nangu laa sa yoon gën a gudd loole ci góor ñi toppoon Cheikh Moussa Cissé ñambe borom daaru Cheikh Souleye laa ilaaha illallaahu Cheikh Souleye laa ilaaha illallaahu laa ilaaha illallaahu ñaan yaram ñaan dundal ñaan dundal dundale dundal dundale ñaan dundal dundale ñaan dundal dundale ñaan dundal dundale ñaan dundal dundale ñaan dundal dundal lee eh. ñaan dundal dundal lee eh. ñaan dundal dundal lee eh. sa dundu gi la Cheikh Souleye ñaan daay séeréer dundal ñaan dundal dundal lee maam booy dundal dundal lee sama maam dundal dundal lee Sofiage ñan Sofiage ñan Sofiage ñan ma ñu mbaax seex ñan ma ñu leer seex ñan mooy àjjana ñan mooy àjjana ñan mooy àjjana àjjana Cheikh Soulaye ñaan aljanna aljanna Cheikh Soulaye aljanna lan mooy aljanna sang ñaan yaram aljanna ñaan yaram aljanna jërëjëf jërëjëf jërëjëf sang bu tedd sonn rek ngir jox ma ko naa la gërëm naa la jëm yàlla kontaan fasalal mbooloo mi xam ne barki tàbb na ah ànd nga jëmm joo xam ne it de Serigne Fall borom kollëre la borom Pastef moom it sa tànk rek la topp lii ma wax ne milliard rek la tegagut ci suma loxo te am am dina ci àgg jëmm ji it noonu la mel milliard rek la tegagut fii ci suma loxo waaye te am am dina ci àgg jëf ju ne rek defal nañ tey fereem rek ëpp na ñetti million loolu la def moom ay nag la jënd jox ko ne ko yóbbulal sëriñ si naa leen dafa agsi rek ebal nay ñu ñëw am lu ma bëgg lool man sangi su agsi rek dama la koy jox loolu la defaat kon Seydina Alin ñu ngi seedeel Seydina sëñ Fallou ci yow waaye sëñ Fallou it ñu ngi koy seede ci xam dëgg yàlla fowuñ fowluwuñ ñàkk a fa mooy xam ne kii ma dimbale fas naa yéene yëkkati ko ci kaw loolu nag mooy seen pas-pas nit nag lu mu am te amul yàlla amagu dara su amee yàlla am na lépp loolu nag yéeg ngeen te yéen a ngi ci kontaan na su ma xol sedd na wax dëgg yàlla million rek lañ ma joxagut si leer na ma ne bu seen loxo ak si ci loolu moom xam naa ko kon nag seen yéene mooy yéene taalibe yëpp waaye ku nekk dafay am lu ko yàlla mën loo man nag nangu nag bokkut ñii nag dañ boole ñaar yi man nangu ah loolu la ma borom daal waxoon rek ma ne loolu rek laa leen nag doole njaati gi ci surga yi góorgóorlu leen te xam ne lu ngeen yootu jot lu ngeen song daal waa ca tàllal leen alhamdulilah yéene leen yéene leen ñaankat ci yéene la ne de da ngay nga ne yàlla lii laa bëgg ci sa xol yàlla xam na lépp léegi nag wasarri sihrin wasarri xalqi insimo mahjini wasawaati summiyalaaw inni jaaltuka fi daarayni yaa siqati isna nasinan fa kun mul jaayalaw fala takilni ila nafsi fa ahlikakum mujibani aysuma adduhooka yalaw wajal lisaani wa xalbi saakiray kamal hindal mamaati maan iman yalaw sabid yaqiini fi xalbi bila wajalin hatta uhibba liqaaka alxaq yalaaw walij alil mawta raaxaatin wa mafraatan min kulli sarrin wa karbin daqa yalaaw wa fasdiyal jisma ay suruuqu faaraqani fil xabri la tubliyan hudaara yalaaw wa kun nasiiri anisihi na maa dafanoo جسمي فسرت ويدا سمي له لا تدممن مهيما قد يرويني بل لكفيا كلما أحساه يلا ونجني وجميع المسلمين saadati amin yàllaw waxfir lana walaxa wasur maxaayibana waltuf bina wa biya filawli yàllaw anna tajaawas wa iyaana arxaman nafama lana siwaaka wa anta albar yàllaw fi barsaxi ma xabrin kun laha wasarar wa min kurobin waxaw fi najya laaw laa taxtabira bi ma laysat bi xaadiratin wala tuxayib rajaa haafika ya laaw wa asqina maaha min maai kawsari man ixtarto min jamiihil xalqi ya laaw man kaana yursidu saa xayyin wa yukliku saa kufrin wa yanziru man yaxsaaka ya laaw محمد مسكي الأخيار قائدنا لجنة الخلد يوم الحسر يلاو محمد مسكي الأخيار قائدنا لجنة الخلد يوم الحسر يلاو عليه صل وسلم داهما أبدا ومن خفوا ليوم الدين يلاو عليه سل وسلم دائما أبدا فمن خفوا ليوم الدين يلاو وجعت كل للودود سمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد وسكر محل الله على النبي ولد حمد الله لله بسكر حكيم ينقلب مع النبي wala di xawdil mutalib baddada lisam la xaddoo bin qaasimi rabbi bi jaayil mustafa mi asimi lii jaada rabbi bin nawaali xatana bil muntaxa muxtaari min abdil manaaf duaay yastajaab bil maxfi rabbi yabil muxtaari min xuseyin asaluhu إلى المنى بلا سلاب ولا خرور بنبي ابن كلاب لي جد بخير وقفني مدر ربي بجايل مصطفى من مرّا suxli jumlatan matalibi billahi za bin bin bimni xaalibi yaa rabbi suxli jumlatan matalibi billahi za bin bin bimni xaalibi badiwu saxirliya kulla sanri wa kulla yawmin bin bimni fiiri yaa xayra naasirin wa xayra maaliki unsur wa malik niya bibni maliki xabbi ati wa isati wa nadari kawnuka lee falyakun bi nadare rulil ida wali hab junana bil mustafaal muxtaari min kinan la judd lii bima bihi uniru xayma wa xayra بمن راق سيما نجي جنابي من جوار مسركا والمسركين بالمصطفى من مدركا بارك لي لهم في القياس بمن جعلت ديا إلياسي انصر جنابي هند السير المادر ولك خرمني بجاي مدار تفضلنا لي ربي نسار فيك وفي خير الورى نور نسار آديتني يا خير حد خدعت أنجس لي وهدى بأفضل المات نبي عدنان وابتلي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بالنبي عدنان باركة الصديق والفاروق جمعة مجموع والمفروخ أكرم رب العرش النورين ووالدي سبتين في الدارين sabat sabatu nabil arqiya alayhimu ridwaanu mujrasqiya nafalayhim malul aysomu maal hidda fa jundohol masomu rafa ahlu badril islam wa sansol fu jaara wa salaama baabi ma yasurul xanaasu wa surman lo ana qanaasu baana lana tawhiid wal fiqhu ma tasawufin bi man daana xama hadiyati laay wuddoo di samadi abqat ayaati bi nabi muhammadi hadiyati laay wuddoo di samadi abqat ayaati bi nabi muhammadi habibi ma yasrul amul kenn du gis fenn ci alxuraan ne sëriñ du yóbbu taalibeem àjjana wax na ci alxuraan ne su ñëpp teewee bés bu ñëpp def ni ñu def moom am na ay tur waaye du oo ci turam yi mukk du oo ci suñu turu yaay ak lu suñu yaay yi baax baax du oo ci suñu turu papa ak lu suñ papa yi baax baax xam nga li mu wax yow ma nodduhu kullu unaasi bi imaam yi nee na kenn ku ne ci sa turu njiit xam ne mooy sa imaam ci turu boobu lañ lay woo mu mel ni suñ ne su ñaan xam nga loxo ngi nii waaye duñu wax loxo duñu wax tànk boo ne Souleymane lépp ñëw suñ ne ëllëg Cheikh Ahmed Tidiane képp ku ci taq da ngay ñëw bu ñu ne Cheikhul képp ku ci taq da ngay ñëw bu ñu ne Imaamu képp ku ci taq da ngay ñëw bu ñu ne borom Sookoon képp ku ci taq da ngay ñëw suñu Cheikh al képp ku ci taq da ngay ñëw. ñu ne sëriñ du yóbbu nit aljanna ci turam lañ lay oola alquran wax soo ñëwee nag enquête yi xew ci yàlla la njëkkee yàlla ne yaay njiitu mbooloo mi waaye yow loo àndee woon ak lan nga àndee woon ak ñoom enquête boobu yàlla ko njëkk a def def ko kilifa gi muy njiit nga ne ah man de li ma àndee woon ak ñii nga indi lay de xam nga dañ lay enquête nga wax benn ñu enquêtal la yàllaa ko njëkk def di mu ne yow loo àndee woon ak ñii nga ne dama leen xamal yàlla dama leen yóbbu ci yàlla dama leen woon yàlla mu ne taxawal hee kii lumu leen xamal lu mu leen yoreel ñu ne ah ñun de ñu xamal yàlla. moo nu jox kalimatu laa ilaha illallah de kalimatu tawhid mu ne loolu la leen jox dem leen ànd ak moom jël leen seen téere dem leen suma ndeyjoor mooy suma droite jël leen seen téere ànd leen ak moom dugg leen aljanna ah ñu ne sëriñ doo ànd ak moom ba dugg aljanna xanaa dañ jàngut aaya bi sëriñ bi bu baaxee ci turam lañ lay oo nga dugg aljanna ànd ak moom sëriñ bi bu bonee ci turam lañ lay oo nga ànd ak moom dem beneen boor ba yàlla ne hee yow loo àndee woon ak kii mu ne man di suma askan la ma wonoon askanam la ma wonoon baaxu maamam moom la ma wonoon mu ne ko la la wonoon yéen yow loo àndee woon ak ñi mu ne suma askan mu ne ngeen poñeyante nag yaa waxoon yaa waxoon yaa waxoon yaa ma mu ne jël leen seen ndejoor waay seen càmmoñ du ngeen xam dara ci seen téere dem leen ci kër gu tàng ga ndeke sëriñ kenn mënu koo ñàkk bu baaxee moom ngay àndal dugg aljanna su bonee moom ngay àndal ci seen mbon ba dugg fu tàng bi kon képp ku leen wax ne sëriñ du yóbbu nit aljanna wax bi siiw na de waaye wérut wérul de yow ma noddohu kullu unnaasi bi imaamihi kenn ku nekk danaa la woo ci sa njiit moo tax nit lu mu def bakkanam bu dee ca loolu lay àndal te sëriñ mooy kula xamal yàlla ku la xamal yàlla daal sëriñ la ku la xamalut yàlla nag danga am xarit bu baax rek ànd ak moom am nga xarit de ànd nga xarit bi sëriñ yàlla rek lay jëriñ yow jàngalut la dafa fekk sa papa jàngal la wala nga jàng ba pare dem jébbalu ci sëriñ bi pour lan na la yóbbu ci yàlla sëriñ Tuubaa day ñi jàngoon ñëw ci moom lu ñëwaloon du julli du koor du génn asaka daf leen jàpp ci loxo yóbbu ci yàlla loolu rek moo taxoon ñu ñëw ci moom waaye yi ci téere yi jàng nañ koo pare ku mel ni ma ñëw silla dafa jeexaloon téere yi Cheikh Amadou Fadiama Niang dafa jeexaloon téere yi kon nag lu ñëwee ci Sëñ Tuubaa xam yàllaa tax ñi siiwal ne xam yàlla amut di ko xutba ci jàkka yi di ko xutba ci jumaa yi dañ juum dañu juum xam yàlla moo jiitu lépp gis ngeen njàngale mi ngeen gis yàllaa ko njëkk a def dafa sakk ruuy sotti leen ci kanamam ki la njàngale am ne leen alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen borom ruuy yëpp ne axa kay yow mi wax yàlla duñ ko xam yow sax xamoon nga ko kera da ngaa fàtte te loolu alquran wax ne dañu fàtte science damay def conférence ci université ma ne leen jàng ngeen point boo xam ne da ngeen ko redd benn croix lu ne nag am ngeen ci diplôme waaye lan la da ngeen ko baax pourtant mu ngi fi de science dafa wax ne ruuxu nit loolu. gannaaw bi science ñëwee daf ci ànd ak alquran mu ne ruuxu doomu aadama avant muy ñëw ci àdduna dafa xamoon mais dafa traversé benn fleuve bu ñu tuddee fleuve de l'oubli géej googu géeju fàtte la ci la naan waaye yow doo lijjanti sa bopp doo lijjanti sa bopp soo ko deful du baax de kon nag lijjantil sa bopp jàng nga ko ci université waaye soo waxee xam yàlla mu ne man jànguma alquran di jàng arab ak jàng alquran du benn de arab lakk la mën ngaa jub mën ngaa ñàkk a jub alquran jub la mbaax la ci xolu doomu aadama la ne waaye dañ koy ubbil nit nag kum ne ci yow rek mucc nga loolu nag lay joxe jëlee ko ci Cheikh Moussa Cheikh Moussa jëlee ko ci Serigne Touba kum ne ci yow mucc nga lii suñ gannaaw jamono ko laaj waaye junniy nit milliards nit suñ ko daje woon xeex du am xuloo du am dara du am waaye ñii nag yàlla daf ko indi ci suñ biir ñu juddoo ci suñ biir man am mën di am jub am juba di am ñi ñoom ñu engagé sumi suñ mbubb teg ko fële jël yeneen mbubb ne dañ préparé pour ngeen xàmmee ñu ne ñun ñoo leen di aar pour ku leen war a lor pour leen bu leen lorante pour bu leen lorante rek la donc bu leen lorante loolu rek la bu leen lorante nag loolu la alxuraan wax di yonent bi nee na képp ku gëm yàlla gëm bis pénc na nga wax lu baax wala nga noppi loolu su ko nit ñi toppoon fu xeex di am sakantuma da jël bomb de ko sànni nit du du am mukk lii nag moo ne ci Sénégal moo tax ñëpp joxante loxo moo tax ñëpp bëggante moo tax ñëpp bayante xel ngir jëmi yàlla lii daal ku ci ne jàll nga ku uuteeg lii yaa ni sa mbiru bopp rek laay Cheikh lii la bëgg ah, lii rek la amul leneen asalaamaaleykum wa rahmatulah fi hisbihi kulli bihi kala jërëjëf Cheikh Souleymane Niang jërëjëf Cheikh Souleymane Niang Je sur le nom de toute puissance. Sanguignan, on doit la remercier à cause de ta mission accomplie. Voilà donc l'homme qui est de savoir et de connaissance, Sanguignan. C'est l'homme qui sauve des âmes. C'est l'homme qui libère les âmes. Il est là pour sauver les âmes. Donc venez, c'est Sangenyan. Il vous aidera. C'est le prophète maintenant. Il habite à Mboudaï Serer. C'est Serre Moussa qui son sang. Il n'a jamais baissé les bras. Et il n'a jamais, il n'a jamais été découragé. Il a accéléré, il a tenté. Donc ce qui était valable pour Sanguignan, donc c'est valable pour nous. Oui, donc je vous remercie, certains d'entre vous. Donc continuez sur le sommet d'Allah, sur la bonne voie. C'est la ilaha illallah. dëgg la màggal gi moom màggal la mooy sant yàlla te boo xoolee borom woote bi daa tënk wooteem bii nii ci ñetti wax bu kenn xiif bu kenn mar bu kenn mer te ku ne xam na ne kàddu góor yàlla du am benn déggin ndax li tax yàlla defal ñu ñaari nopp dafa bëgg mboolem kàddu góor yàlla ñu mën cee xontoo ci ñaari biir mooy am ci dégginu saayir waaye am ci dégginu baatin mooy lan mooy bu kenn xiif ci saayir ak lan mooy bu kenn xiif ci baatin lan mooy bu kenn mar ci saayir ak lan mooy bu kenn mar ci baatin lan mooy bu kenn mer ci saayir ak lan mooy bu kenn mer ci baatin bu fekkee nit ki càmbar na ñetti kàddu yooyu noonu ci juróom benn yi mu doon leen lu ci nekk mooy juróom benni fànn yi yàlla tënk àdduna ndax dane xalaqa samawati wal ard fi sittati ayaamin suma istawa ilal ars kon ñett yooyu tënk juróom benn juróom benn yooyu bu ko góor yàlla bi càmbaree dina defar addunaam defar alaxiraam kon nag noonu la demee waa kër Seydina Ousmane Diagne la bu sang Seex Souleymane Niane loolu daal lañ amoon loo xam ne dinañ ko ci tënk ku ko càmbar rek daj ci lu bari jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah xanaa kontaante kontaante mbégte mbégte mbégte rek dañoo bég ba ma ñu ñëw wax Serigne Touba xam na ko laa ilaha bi ñuy dund ci suñu xol yi leer bi ñuy dund ci suñu xol bi te Ousmane Diagne jaan ñu ko borom jaareem yaa ngi may dégg ah jaarale ko ci sang Fay mu jaarale ko ci ñun moom la ñuy dund di ko di ko waxee di ko doxee leneen lu dul moom doxuñu ko leneen lu dul moom defuñu ko moo tax cant leer bi ak mun kii bi dañ ciy góorgóorlu sant yàlla bu wër mbégte mbégte mbégte alhamdulilah di sant yàlla rek xam ne magal bi moom nii la mor a deme ndax borom de koo jaayante moo tax waaw borom de koo jaayante bu baax moo tax mu am lii ko defee nag ñu ñu war a jàngat ci moom xam ne dañoo war a góorgóorlu ndax lii mu am yombut teraanga bii mu am yëpp tey métti woon na démb mu koy door a am kon tey moo tax ba ñun xiifuñu maruñu di gën a sant yàlla rek di gën a sant yàlla di gën a sant sang ñaan xam ne lii mu am yombut dañ ci war a góor góorgóorlu bu baax waaw dañu gën a góor góorgóorlu daal ji jàngat ci moom xam ne fii tey dara manque wu fi da koo liggéey démb tey door a ñëw da ko jaajëfal jëf jërëjëf jëf ñaan yal na yàlla gën a yokk mbaax rek. waaw moom la sëñ bi wax de moom la ñu fas yéenee def incha allahu rabbi fas yéene wuñu kenn xiif dañoo bëgg ñëpp lekk naan ba mandi lekk ba suur moo ñu tax a jóg wallaahi gan ñi lekk rek lañ bëgg ñun duñu ay gan dañuy ganale wallaahi ndeysaan duñu ay gan ñun ñooy berndeel gan yi loolu rek a ñu tax a ñëw ñoo ngi jóge ba njaareem ñëw pour berndeel gan ñi wallaahi. waaw fa tabarakallah sang bi ñu ngi lay siyaar di la ndokkee ci kàddu googu moom moo ko waxoon ci sunu kanam. la mu ca namoon itam ku oo nit ku nekk yaakaar naa warul mer te ku oo nit itam doo eh, sañoon du xiif te ku oo nit itam doo sañoon du mar kon ñu leen di fedd li wax jooju te di leen ciy jaajëfal ndax seen tànk rafet na sëriñ bi nag dafa di koo xam ne nii exemplaire la exemplaire am mooy ñii ngeen xamante ni moom ngeen janool tey ñu jóge ci gox yi ci réew yi ci tund wi fas yéene jàppale ko ci bésu Serigne Touba bi et eh, Cheikh am lu mu ci waxoon mu ne tudd ko benn la rek muy Serigne Touba ndax fépp foo xamante ni ñu ngi fay tudde laa ilaha illallah tàmbali waayam du neex waaye mu ga yëpp koom la kon ñu ngi koy njokkeel ci koom gi mu ñu defal di ko jaajëfal ci koom gi mu ñu defal mbooleem ku jóge ci sama jóge ci gox yi ci réew mi ci tund bi soo yegsee dalal nañ la te di la naan dalal jàmm soo yegsee gulit xam nañ sa yéene yàlla na ñaan bi egg si ci yow te nang ko tal te nang ko attan fa tabaarakallaa benn sëñ bi am na luñ ci mën a wax maa ci gën tuuti waaye mun naa cee wax lu bari sëriñ Suley ñaan mooy koo xam ne nii moom moo feeñal mbir te ba ko Seex Musaa joxe ci anam bu bir ci yéene gu bir ci bu sedd guy ci kaw nag mu liggéeyal Serigne Touba ci kaw nag mu liggéeyal Cheikh Moussa ci kaw nag mu nangul Cheikh Moussa doom bey jur lépp yóbbu na Cheikh Moussa kon ñun ñi laxasaayam laa woon jóge fañ naan buur tudd Assane seen e eh, téye na ma xanaa ñun ñoo motati kay waaye la mu yore di ko joxe mot na e ndax du ànd ak ko moto di te yéen ñii fi nekk nii tey jël décision bi e yàlla amel na leen pay yàlla na buñ ko géej ji jëflante ci nii rekk nag sëriñ bi moo doon koo xam ne nii gars yi dañoo dem wut doomu guy macc yem ca waaye moom dafa dem am taatu guy am doomu guy am xobu guy di safe que maanaam dana am laalo dana am guy dana am xanc xanc boobu nag la ñu yeewe bés ni tey ba ku ci nekk di saba laa ilaha illallah la alxuraan waxoon fastarafahu jamihan mooy leen ci caalaaleeg sunu boroom mooy xanc boobee hen e, ñu ngi ndokkeel Serigne ñaan Niane man Assane maa ngi lay siyaar di la ndokkeel di la jaajëfal di la ñaanal fan wu gudd ak wër ak wër la yaa njoboot bi ku dégg ku déggut yàlla wàcc ñoom mucc ci barke Cheikh Moussa rabiyallahu anhu fa tabarakallah waaw dëgg la magal bi neex rek la def ànd ak wér ànd ak xéewal baatu laa ilaaha illallaah moo tax ñu jóg ànd ak ñaan ak Seex Musaa barke Allah bés bii nag bési bés bu neex la bu ànd ak xéewal ànd ak banneex ak xéewal dafay yàgg nag yoone yàlla la ñuy woote laa ilaaha illallaah moo fi ne sangi ñaan moo moo fi ne moom la ñuy woote moom la ñuy woote moom la ñuy woote bés bi nag ah dafa nekk bés boo xam ne ñëpp ay ñëpp ñoo nekk ci bés bi ci baat lay ilaaha illallaah rek moo tax ñu nekk ci bés bi waaw allahu rek moo moo tax ñu jóg waaw allahu rek moo tax ñu jóg ci barke Cheikh Moussa barke Sanga ñaan barke ku rëri jàllu laay baax na nag baax baax gaal jërëjëf magal bi maa ngi di nuyu ñeen ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant magal bi neex na torop ci barke Sanga ñaan kontaan nañ torop waaw. waaw baax na mosu billahi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin yaaram bi ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar di siyaar waa télé bi daara ji nag mooy daara Arifina Billah bu Jakayel ñu bokk ci réseau de Diourbel naa ne ci Maulana sang Cheikh Souleymane Niane xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xam maarifatu billahi mooy xam yàlla di secret laa ilaha moo fi indi mbokki taalibe yi moo ñu fi indi ah màggal gi nag buñ koy e, tàmbalee di ko fekkee yàgg na lool wax dëgg fa yàlla waaye gis nañ ci maanaam yokkute ak tawféex ndax damay wax ne lii la Cheikh Moussa waxoon ne baatu laa ilaha illallah képp ku ci fanaan ba bët set yàlla raxas sa bakkaar tabal la aljanna waxuma nag nga yendu ci fanaan ci depuis démb ba léegi ñu ngi fi bàyyi ko ñii bàyyi ko Gambi ñii bàyyi ko Dakar ñii bàyyi ko Jakayel waaye kuréel gi yëpp daal kuréelu Jakayel la euh, daaray aarifi nabillah waaw loolu daal moo nekkoon maanaam li nga xamante ne mooy liggéey bi waaw incha allah jërëjëf bu baax. ñooy ziar bu baax. di delloo Cheikh Souleymane njukkal bu baax ñun la waa daara Arifina bi laa bi sangi ñaan bu jàkkayel waa màggal bi neex na trop ànd naak yàlla kon ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàcci waay si yàlla bu baax di gërëm sangi ñaan saay su ne rek ndax moom dañoo fekkoon ci lëndëm dugal na ci leer kon dañoo am njukkal tey bésu ziare bu day nag bésu sant yàlla la ñëw nañ ngir sant sangi ñaan ci doole laa ilaha illallah may sant sama sang yi comme Cheikh Baylaat Ndom maa ngi koy ziar bu baax di koy jox wàcc waayam si yàlla macha allah sa ngi ñaan euh, ñu ngi koy taalal ay loxo rek di koy ñaanal mu gudd fi euh, fi lool te ànd ak wér ñaan yaaram mu dund 111 ans sans ordonnance lu mu fi gën a yàgg rek mu nekk suñu njëriñ ci référence yàlla bi macha allah maagal bi. yaa malikal mulki yaa man jalla alxawadil irham jami xalwara yaa xaadiyal rada yaa maalikal mulki yaa man jalla alxawadin irham jamiihal wara yaa xaadiyal rada maa tamaxanaawul qalbu min dararin bi jaaya afdali man lillaahi xallaja maa tamaxanaawul qalbu min dararin bi jaaya afdali man lillaahi xallaja